ginnaaw bi ñu génnee ci campagne bi mi ngi sarale di amal ay liggéey yu am solo moom Pablo moom si Cissé Lo di responsable politique fii ci Touba demeeku nanu tam tamxarit bii de ñëw na jàppale ñi nga xamante ni ñoom ñooy militants yi dëkkaale yi ci lu ñuy jëfandikoo. na politique gu moom lay def politique gu développement. dana jàppale ki xëy jàppale dana jàppale ko ki jàppale ndax loolu mooy tax ëllëgee teraanga gi ñu mu ñu wax jàppale la tey élection jàll na boo ko neexoon jël nag yóbbu ko feneen kon kay nag yi mu indi tey da indi ngir liggéey sëriñ bi kon la sëriñ mën taxaw waxoon président Macky Sall rek laa wax mooy xool xool eh, sëriñ bi nga ko defal ndax dëkk bi lu fa waaye ni defal ni rek sëriñ Tuubaa nga ko defal ndax yooyu ñu am ñu jàppale woon ñu ñu boole kook suñu dooley bopp jëndoon ay nag comme ni ko loo waxee ak kub ceeb pour dimbali population bi ñenn ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw di ko def nag si ndigalul président de la république monsieur Macky Sall di ko def tamit si ndigalul Doudou Ka directeur de AIBD ndax ko gis moyens yu am solo yi ngi indi si campagne électorale bi jàppalee ko ay jeunes jàppalee ko ay ndaw jàppale ko population Touba xëy na bu doon sunu kàttan kase duñ man loolu loolu nag bu amee président de la république moo nu si jàppale soxnaam moo nu si jàppale doomam moo ñu si jàppale waaye nag directeur Doudou bu directeur AIBD moo ñu si jàppale continuer du ñu jàppale ndax wax na ko waxati ko nee na ma bu ma gisee ndaw loo xamante ni am na avenir pour ay ndawam am na ambition pour ay ndawam pare naa pour joxante ak moom loxo pour jàppale ko loolu moo tax mu jël alal ju bari jàppale ñu pour ñu man lii ñuy def si lañ àndoon ak suñ xarit yi ñu àndoon wër dëkk bi waxak ñoom waxtaan ak ñoom indi teraanga pour dimbali ñenn nit ñi nga xamante ni soxla nañ ko si tam gi mu toll ñaar fukki nag ak juróom ak ay toni ceeb ak euh, tuuti rek si xaalis pour jàppalee ko ñenn ñi ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw pour gën a koo fasanteeg yow politique dëgg la waaye bu politique waxoon nañ ko bi ñuy ñëw politique de développement lañ ñaan yàlla def politique bu nga xamante ni kenn ku ne di nga si gis sa bopp. Euh, wakaan xaqan lii daa rëy lool ci ñun ndax euh, lii ñu def nii lu rëy la. dan lay sant nag amuñu ak fay. ñaan lañ am ndax gala jullit mooy ñaan dañ lay ñaanal li nga xam li nga bëgg ak fi nga bëgg àgg ak li nga bëgg yaa ko xam yàlla na ko suñu borom defal barko Seexu Xaddim amuñu lenn lu lu taalal suñu loxo yi sant jàpp na ni nag tey lay gën a woy liggéey bi si wàllu politique du mos a moom Pape Lo di fàttali nag si campagne yi amoon na si taxawaay bu mat sëkk si biir Touba demoon seeti population bi rawat na jigéen jàppale leen si financement ak it ay jumtukaay lu si mel nekk machine ak yeneen yeneen bokk na si tamit ay lampadaire ak it yeneen xeetu ndimbal tey ji nag nee na kat li nekk seen ginnaaw weesu na ñoo ngi nag waajal li nga xamante mooy élection présidentielle yi war a